asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yi ak ziar yi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér. noo ngi ñaanal bu baax sunu jàmbaar ji di sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda jiite njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te ko wér. ngeen gisee jotaay bi nag xam ne ndigal bàyyikoo na ca sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Mountakha. ex fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëmm ju tedd jiiri sëriñ Amdi Fall tey wuutu fi maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi dina ndigal loolu nag mooy bis bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo sant njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñu tuddal ko yàlla muy àll ba bii di ñëw ci kër këram daaru minam ci kër Cheikh Mouhamadou Bachir ndigal loolu nag bi egsee ci sëriñ bi sëriñ bi woo njaboot gi woo bokk yi fédération maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nii toog waa daayira Jësbul Murit lëkkale ñu mboolem sëti maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nii toog waa daayira Zikrula ñoom itam di ay tuddkatu yàlla te ñëpp di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nii toog sëriñ bi woo leen tey nag ngir am kàddu yu bëggoon a leeral ci bis bi. ngir murit yi ak mboolem kuy kuy dégg kàddu gi mën a jëfandikoo ndigal loolu kon kàddu gi dañ koy jox sëriñ daam ci ndigalal sëriñ bi mu yor kàddu sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu sëriñ baa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sangam bu baax ba di Cheikh di Muntaxa di ñaan saa boroom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem njabootug sëñ Tuubaa gi rek fu nu mën ne rek te di leen siyaare bu baax a baax naka noonu mi ngi nuyu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi muy njabootug boppam di leen siyaare te di leen ñaanal sama borom kattanal leen ba ndigal yi ñu mën koy jekku saa su ne noonu ko sëriñ Mamoun waxee nag jëwriñ yi teew danoo teew si ndigalul sëriñ bi si ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi jox jot na ko mu bàyyi ko si Cheikh du Mountakha ngir bis bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy waajal fee sa kër Cheikh Amadou Bassir gi si daru Minam sëriñ bi waxoon ni dasee bëgg a sant yàlla sunu borom si turu yàlla njukkale ko maam Cheikh Ibrahima Fall muy bis bu màgg boo xam ne bii dafa aaje nu waajal ko ndax du lu ndaw looloon looloo doon mm, sababu sëriñ bi tànnoon si jëwriñ yi muy ñi nga xam ne ak njabootam lañ ñu ñu saytu si njabootuk Cheikh Ibra gi kuréel goo xam ne gii danañu waxtaan ci lépp lu jëm si luy mën a ñoŋal bis boobee ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee njaboot googu nag ñoo teew nii ci kanamu sëriñ bi kon sëriñ bi mooy feddali ak di wax mboolem taalibe yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax mboolem jullit yi ak képp ku am yéene ñëw teew si ñii nga xam ne ñoo teew fi kanamam sëriñ bi moo leen tànn ngeen ñu taxawal ko si lépp loo xam ne mooy tax bis boobu mën a mel ni ko sëriñ bi bëggee te jubluwu si lenn nag lu dul sëriñ bi nga xam ne sangam bi nga xam ne moo koy liggéeylu mu am si mbégte la mu si yaakaar ak la mu si séntu lépp mu am ko ndax bu ko amee rek noonu leen si bëgg lépp daanu ko am kon nag sëriñ baa nga leen di ñaanal di liggéey bi ngeen tàbbi si ak bisimilahi rahmaani rahim te li ngeen li ngeen si jëf rek yàlla dëppoo ak li nga xam ne moo gënal sëriñ bi kon kàddu gaa ngi noonu euh, sëñ bi nee na ngeen dem wéyal liggéey boobu ni nga xam ne noonu la leen ko digalee Euh, ngeen doxe ko noonu ndax li mu si bëgg lépp boo ko amee rek mooy sëriñ bi am mbégte si liggéey bi li mu si bëgg lépp mu am ko kon na leen sama borom jàppale barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin Fall amiin Fall amiin amiin amiin amiin Fall amiin Fall.